alaaj Papa An sama xol sedd na guy maa ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare bu baax di nuyu Boubacar jàlloo di nuyu Nour Mbaye Garmi ak mboolem ñi nga xam ne ñooy sunu soxna yu tedd yii euh, foofu nga wax mm-hmm. muy mbirum sëñ bi ci njaalbeenam mm-hmm. sëriñ Touba nafaana allahu bi barakaatihi wa radiyallahu anhu wa ardaahu anna ni ñu ko xamee mi ngi feeñ ci askanu Mbàkke di doomi ku ñu wax Sëriñ Mbàkke Moor Anta ci Zahir. di mhm. doomi maam Balla Aysa di doomi maam Maaram waajuram wu tedd wa di sëñ Moor Anta di jëmm joo xam ne ji ku dul moom mënoo doon bàyyi borom Tuubaa Xaadimu Rasuul. Mhm. Cheikh Mouhamadul Bachir bàyyi sëñ Muntaxa mi nga xam ni sëñ Touba ko jur yar ko mhm. dafa bind ci sëñ Touba benn téere boo xam ne bi booy encyclopédie yoonu murit mhm. di marja bu mag di delluwaay bu mag ci képp ku bëgg a wax ci sëñ Touba te doo ko yokk doo ko wàññi doo ko yàq mhm. mu tudd Minnanul Baaxil Xadim fii Sirat Cheikhil Xadim muy nusxa boo xam ne bii cinq cent quinze pages la lépp ci dunduk sëñ Touba dafa wax ni sëriñ moor mi nga xam ne mooy bàyyi borom tubaa xaadim rasul di waajuram wa kaana cheikhul waali radiallahu taala anhu aaliman faqihan nabilan yartadihi almuslimuuna imaman wa yuhibuhu al umaraau wal mulooku lima taxaqahoo min almihi wa wariihi sëñ moor anta sali nit ku mag la woon boo xoolee doomam yii ñu ñu askan ci moom ni mooy mooy seen baay mm-hmm. xool jigéen ñu tedd ñi yoroon xool njabootam gii danga xam ni kii yàllaa ko tànnal sëñ Tuubaa muy baayam mhm. mu jëmm joo xam ni kamu mu yoroon am ci borom Tuubaa mii ak magam ju baax jëri Maam Moor Jaara kooku soxna Maryaama Buso la tudd di doomi sëriñ bu soobe mi doomi Xamaat di doomi Matabara di doomi Mabuso Aw Mbaay di doomi Matabara di doomi Xamaat di mbusoobe macha allah di tukkulóor di toorooro di shérif sëñ Mat Lamin Jóob Dagana nee na soxna jaaratullaahi Mariyaama ndey borom Tuubaa mhm. digganteem ak Seyduna Xasan bint ibnu bintul Mustafa sallallahu alayhi wa maam yu néewoo fi dox mu judd ci askanu Mbàkke moom itam ak mbusoobe mhm. sëriñ Tuubaa ak soxna jaara mhm. dañoo def li ñuy wax relation antisymétrique sëñ tubaa ndeyam dafa sant Bousso bàyyam sant Mbàkke soxna Jaara ndeyam sant Mbàkke bàyyam sant Bousso boo bëggee jur sa bopp da ngay jël sa mbokk mm-hmm. muy jigéen joo xam ni c'est une femme légendaire aw léeb la woon rek yàllaa ko sàkkoon rek ngir jaarale ci borom Touba moom soxna jaara moom soxna jaara mm-hmm. moo tax damay faral di wax ni tubaa Touba yéenuwul maanaa mbiram yéenuwul maanaa yënuwul maanaa mbiram waaw bu fekkee loo gëmul loo luñ tegul ci logique doo ko gëm da weddi lu bari borom Tuubaa nekkul ci téere waaw ah, yàlla la mu wax ni mhm. Mhm. Mbàkke Juuf mu ni ko Mbàkke mu ni ko la ko dale ci bis bi jant bi jëkkee fenk fii ci penk bi jëm ci saw bii mhm. ba bisub tey bii ku ma mos a ku ma mos bëgg a xam yaa ma gën a réere Mbàkke Juuf mu ni ko Mbàkke mu ni ko néewuma ciy téere néewuma ciy téere soxna jaara yaayam jooju aw léeb la woon wa kaanatil walidatu jaaratullahi mariamu radiallahu anha saalihatan afifatan dayinatan kasiratu salaati wa sawmi wa sadaqati mustaslimatun li rabbiha qaimatun bi wajibaati diiniha wa fi ma baynaha wa bayna cheikh al anfi qariniha wa kaanat turabbi awlaadaha ala diini wal muruwati wa tahaarati wa kasirun ma taxki alayhim hikayat saalihin sëñ ba Basiru Mbàkke bind loolu ma wax ci arab mm-hmm. mu ni soxna jaara yaay borom tubaa saari ci saalihaat yi la bokk mm-hmm. doonoon jigéen ju sàmm doonoon jigéen ju am diine ku bari woon ay julli buñ nee diw dafa bari julli nag waxuñu julli waxtu juróom rek yam ci mooy kuy julli juróom fukki julli yi wasaw mi wa sadaxati bari lu muy woor lool ci at mi lu masa am da koo jox ci yoor yàlla teel a dem kër ka ko jëkk a yor moo ko mas a yor moo ko mujj a yor musta jàllantu ci yenn loxo bu soobee la war a war a wàcc mbàkke te lay xam ne soxna jaar musta am génn benn bis bu neex ci ak dundam mooy maraaxilam yi ni mu doxe fuuta la gane jamono mbàkke la tàmbaleeb liggéey xuru mbàkke la sëñ Tuubaa wate mbootu poroxaan la des jenn jenn ñaari doomam yu sosoloo bàmmeel amul dendu ca genn doomam jamono bu metti ci la dund maam Mor Jaara taawam bu baax ba ma nga ci adama yi mbusoobe ya borom tubaa nga ca tund wa abibulaay mu topp ci moom ma nga ci xuru mbàkke soxna jaaraa nga ci poroxaan te sañoon bu lay dendalee dendalee ak sa doom mbaa sa borom kër loolu dara dalu ci borom soxna jaara mhm. muy jigéen joo xam ne ji dafa wàtte wàcc mhm. ba muy dikk mbàkke sëñ bu soobe càmmiñam loolu nga xam ni moom moo bokk lépp moo ko jam bu dem ci xol ñu ko bu Bousso yaa ngi def la sa bàjjen yu baax yi daan def la sa ndey ya daan def la sa bokk yi daan def yaa ngi dem kër xasal góor buy xare yi day xas jigéen buy sëy day xas fee nga jëm ca sëñ Mor Anta Sali muy sa nijaay di sa mbokk ñu jox la ko mam Balla Aysa jur ko mam Maaram jur ko yow mi soxna Asawaalo Mbàkke jur ko jur la Ahmadu Soxna Bousso jur ko mam jur ko muy sa nijaay war laa yor nga jëm fa moom dafa fekk soxna Anta Njaay Mbàkke sa sa ndey ja nga xam ni Ibrahima awa ñëw ko jur maam maaram jur ko waxal li ngay def soxna jaara toog ni ngeen ma jox alquran al karim mhm. ba mu ko ubbee rek dal ci laayee maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakina rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu daal di wëndeel bopp ba ni na bu ma woon yàlla saxal ni ab yonent dootu am ci kaw suuf kon dinaa jur bu yonent waaye yonent jeex na muhammadu rasulullahi mooy xaatimu nabiina waaye dinaa am doom joo xam ne su ma ko yàlla mayee yàllaay maye nag waaye su ma yàlla mayee doom ku tudd rasulullahi tudd ko waar neke wàcc na doomam mooy xaadimu rasulullahi wallahi dëgg la dinaa su ma yàlla mayee doom yàlla na ngay maye waaye su ma fa yàlla mayee doom dinaa am doom joo xam ne ku tudd rasulullahi tudd ko doomam mooy xaadimu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te loolu kat sëñ Tuubaa waxoon na ko ci njaareem dafa am benn sërif bu ñëw ci kër gi yéex a gis sëñ bi lool ñaan naan ko ma nga fekk ma nga nekk bëcc bëcc ji bari lool sëñ bi sërif bi gis boppam waaye sëñ bi moom loo fi yàgg-yàgg rek boo ko gisee sa xol sedd guy dëgg mu daal di am xaw a frustré tuuti waaye nag mu mu tempéré rek bi mu ñëwee ba ci sëñ bi nag di askanal boppam ni ko innama ana baidu euh, dayfun jitu min biladin baidatin innama ana fulaanun ibnu fulaanin ibnu fulaanin ni ko damay damay gan gu gu baax jóge fu sori diwoo ma jur diwoo ko jur diwoo ko jur di ko di ko di tagg boppam ba ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Tuubaa daal di fettasu daal di mooñ muri kaala gi ba mu gis jëbam ja waaw mu ne ko wax nga dëgg ni Mbàkke Juuf mu ne ko Mbàkke mu ne ko naar bi wax na leen ni mu demee ak rasulullahi wax leen ni ngeen demee ak rasulullahi wax ko ni ngeen demee ak mu ne ko ah, naar Chérif suñ digganteeg yonent bi soriwul ka jiitu ko ca topp rek nu na boo nee Mouhamadou Rasulullahi ni xaadimu Rasulullahi rek ni muridullahi waaw waaw ni ko boo nee Mouhamadou Rasulullahi ni xaadimu Rasulullahi ni muridullahi mu feeñ ci diggante boobu te bu doon nit moom sëñ tubaa kon bokkami ku ci ne mat nab nawle bu sëñ Touba doon nit maam Mor maam sëñ Mbàkke sëñ Mbàkke Anta mooy taaw baayam mhm. soxna Anta Njaay jur ko mhm. mu jëkk feeñ ca kër ga mhm. soxna Anta Ndiaye di lépp. Mhm. mat lépp. Mhm. jëkk fa ñëpp mujj fa ñëpp ku fa ñëw mu andi la fa. suñu mbàkkante lañ denc Njaañ. moom lañ denc Njaañ war naa dem nañ ci ba ci janaa sax. Njaañ Njaañ ca topp. Mhm. di magi borom Touba ñu bokk ndey ak baay. moog sëñ Touba ñoo tolloo ak dund. mu magi sëñ Touba ay at. tooral ko alxuraan dinaa fi laa téeméer rakk guddi gu sëñ Touba ko seeral ni amul bor amul bakkaar. di jëmm joo xam ne jii. doomi sëñ Tuubaa yi bi ñu joteetul ci sëñ bi ndax exil beeg bëcc bëcc ji ak éloignement bi moom lañ daal daleel seen xel mooy kilifa ak ñëpp muy Maam Mor Jaara borom sàmm te taxul mu def sëñ Tuubaa nawle déedéet Cheikh Ibra Faati mm-hmm. bu sëñ Tuubaa doon doon nit Ceerno mat nam nawle dëgg la seen ñaari ndey yi mook sëñ tubaa seen ñaari ndey yaa bokk ndey ak bokk benn baay seen ñaari ndey yi mook Ceerno mm-hmm. seen ñaari ndey yaa bokk baay mm-hmm. soxna Faati Isa Xafsatu Law bu Mbàkke mi ko jur ahmadou soxna bu soo ko jur soxna jaaratullaahi astawaalo mbàkke ahmadou soxna bu soo ko jur sëñ tubaa ko mage fukki at moo ko tooral alxuraan moo ko jàngal moo ko yar sëñ tubaa nee na ceerno mosuñoo teqli ko juróom fukki at ak ñetti weer la dund mustafa mustawob musta jullee fu dul jàkk musta tiim musta mooy yàlla keroog ba mu ganee adduna moom ceerno la ko sëñ tubaa warlul cërëm yi mun tee def bàkkaar warlul naa ko cërëm yi tuyaaba la mën a def waaye mun ta def bàkkaar taxul sëñ tubaa dim nawleem musu bu sëñ tubaa doon nit maam maam Cheikh Anta matum naw de sama turandoo sëñ tubaa ni maay farata seex ay sunna sëñ tubaa ko ni seex mu ni ko mbàkke mu ni ko cërub yàlla du fang dogalub yàlla waaye natt bu yàlla jëm a seeti ci dinaa ko jëm dinaa ko wëlbati mu jëm ci ku la bañ muy jëmm joo xam ne jii sëñ tubaa rek ko mat kilifa mus ta def sëñ tubaa maroom mus koo defum nawle ba ci mi yépp nag seen ndayi nawloo sëñ tubaa di seen mag di seen sëriñ di seen kilifa mu nekk ci seen kanam feeñ ca Mbakke Bawol ca ëttu gaar ba fa la sëñ Tuubaa feeñe booba gaar ba nekk fa waaye sëñ Mat Lamin moo wax ni fa sëñ tubaa feeñe yàllaa ko mujj defub gaar ñu di fa duggee di fa wàcce sëñ Tuubaa jàllukaay jàllekat la ma nga feeñe ci jàllukaay ba hmm. ama charan ala gane jamono atum junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukki at ci gàddaag yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak booba feeñ ci kanamu ñaari waajuram yi lu nit di am ci mbokk sëñ am ko sëñ am nay mag am nay nijaay am nay baay tax am nay rakk du ku du majhul bokkam yi baax lool yàgg ci ngor askanu kër ndayam yi toll ni askanu kër baayam ñu naw lool waa Mbusoobe sëñ Mbàkke Buso rek doy na sëkk waa Mbusoobe mhm. ku sew newu ci naar ba nee na kafa shahidan an alqadima ibnu bintihim mhm. kazaka cheikhul xalifati fadilu nee na li lay xamal ni euh, euh, Mbusoobe ku sew newu ci mooy ci la sëñ Tubaa ci la tànnal sëñ Fallu Mbàkke ndayam mhm. kafa shahidan an alqadima ibnu bintihim kazaka cheikhul xalifati fadilu booba sañ fàllooy xalifa ñuy askan wi nawloo waaye kenn ci mbàkke bu soobee ku def sëñ tubaab nawle amu ci mu feeñ ci kanamu ay waajuram waaye nag ndey mooy jëkk a xam doom ndey jëkk a xam doom juy jafal ñaar kew ñaar suuf ndey koy jëkk a gis bañ buy fett ndey koy jëkk a gis ndey mooy jëkk a gis muuñi doomam soxna jaara dafa teel a xam sëñ tubaa moo tax daana wax ni soxna jaara kat bu leen koy yemalee kenn ndax daf maa teel a xam te daa ma liggéeyal waaye li ko teel a tax a xam sëñ tubaa mooy yëg na nii bi mu àndeek moom bi mu yëgee ni yàlla boole na ko sëñ tubaa maanaam fi fi ashuri hamlatiha jamono yi nga xam xam na ni mi ngi ànd ak moom ci saahir sawara dootu ko lakk mën naa tibb xal mën naa dugal loxoom ci ñulug dootu yëg a lakk ko sëñ tubaa mosu koo yóbbee wenn fite fitna mosu koo yóbbee benn coono ba keroog ba ko tegee bët mu teel a gis ni sëñ tubaa mii teel naa wattandiku barab bi ma jàll sa saqaaw yi mus koo nangoo rombale am po sëñ tubaa mus koo nangu daawu ko naa ci jooy ba noppit sëñ tubaa daawul nangoo të bi mu wàccee ween rek daawul nangoo tëdd ci lalu ndeyam soxna jaara xam loolu lépp ci moom ba noppi di ko suturaal mus ta nangu kenn xam ko lu ko sëñ tubaa ma sa wan rek suturaal na ko nëbb na ko rek ngir bëgg yàlla bàyyi ko fi bàyyi mi teel koo xam lool ay bokkam teel koo xam lool mu teel a wuuteeg ñëpp zahiratan wa batinatan moo tax Cheikh Mouhamad la Mat Lamin Diop Dagana nee na njaal beenug sëñ Tuubaa nit ñi dañ daan am xel yaar ci fii xaqali safiihi aw fii xaqali rashidihi di xalaat ndax kii day nit la walla dafa kile yàpp ni ndax bu toogee fi benn barab mën na faa yàgg te du jóg mën naa bañ a wax mën naa bañ a lekk nanguwul ak jaxasoo waaye ñu seet li bu fekkonte ne ku dese la da dul xàmmee lu baax ak lu bon ndax nit ku amul xel du xàmmee yaar yooyu waaye ñu teel a xam ne li muy wuute wuute ak nit ñi dafa gën nit ñi ndax xam na lu baax xàmmee na lu baax ak lu bon te yu baax yi ya ci gën a jafe te gën caa gànjaru la teel a taxaw alifa nusuka wal ibadata wal xilwata tiflan wa hakaza nu jabaaw noo ne rasulullahi meloon sallallahu alayhi wa sallam waaw nga xam ne ba mu jógee rek la daal di aw yoonu siraatal mustaqima teel a wattu alquran lool teel a dëddu lool rafet jikko yëpp ñi may xiif ñi may mar ñu ne wéetaay fonk kilifa am yërmande bokka mi teel a xam ci moom loolu teel a alxuraan te di ko jëfe sëñ Cheikh Mouhamadul Bachir nee na ci téeréem bii ma wax bi sëñ Touba tolloo ci ràññee rek nga xam ni xam la bu loo bi mu daataa dem daara bi mu waata dal jàng mhm. la ko ndeyam wax ni ko ahmadou fa min daabi saalihiina qiyaamu layli sëriñ Basiru nee na fa saara cheikhu kullama janna alayhi leylu yaquumu wa huwa lam yutqinil maktaba nee na bi muy gone rek la ko ndeyam daa wax ni ah Ahmadou da nga teel a tàmmal sa bopp taxawaayu guddi kat gaa yu baax yi daa nañ ko def nee na keroog ba mu ko déggee ci nopp làmmiñu ndeyam la tàmbali saa yu ñu reeree tëdd mu reer taxaw ci biti di xool bureau ji ak biddiw yi di di contempler astre yi ak weer wi ak asamaan si an di gong ko guddi moo tax mu wax ca xuqani kaanu isa leyli arqa sitrasa xadekin qaamu sirahan li ahyaa yi dujju naati nee na def na ko ren ak déwén door a dal jàng nga xam ne tàmbali naa dundal guddi moom sëñ Tuubaa te dalagul jàng ba bi mu dalee jàng teel a wattu alxuraan lool teel a noppal ay waajuram lool waaye ànd ak loolu lépp nag nekk ci ron baayam sëriñ Basiiru Mbàkke nee na sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul diiru fanweeri at yi mu am ak baayam laa yuqiimu wala yuqawmu musta taxaw musta taxawal dara dafa jëloon boppam rek may baayam sëñ Mor Anta Sali mhm. waaye nag teel koo xam loon ndax bi sëñ Tubaa daataa am fukki at ak juróom-ñaar ci kaw suuf bët bu ko mas a dal bët bu mas a dal ci jëmmam ja keroog ba nga ko gisee ku ko mas a gis bis ba nga ko gisee mooy bis bi gën a texaj sa dund ku ko mas a gis ba bëggee génn adduna image boobu ak silhouette boobu dafay nekk ci sa kanam nga di ko imaginer foo taxawat day mel ni sëñ Tubaa ne sa kanam mhm. am na ñum mas a woo rek ñoo xam ne ñii daf leen diw nga ni mbàkke nekk nañ fa génn adduna fu ñu toll danaan mbàkke mbàkke billaahi mel ni sëñ Tuubaa da leen di woo wallaahi dëgg la sëñ Tuubaa ñi mës woo comme waaw woo nit rek woo googee mu ko woo kooku day mujj dundam jëpp day far di wuyu rek léeg-léeg mu ni mbàkke mbàkke moo tax sëñ Tuubaa du jëmm mbir la mbir la sëñ Tuubaa du jëmm ah, mbir la mbir la ah, mbirum yàlla la mbir mbir la du jëmm mbir la dëgg la la wal yumnu fil yumna ka wa yusru fi yusra hmm. wa saari masa ilahi fi adaki léegi bi xamee ni hmm. nekk na ci loolu teewul ànd ak loolu lépp mu tegginu hmm. nekk ci ron baayam ak i kilifaam fonk kilifa lool fonk kilifa lool mu tàmbalee ca baayam bu baax boobee mu gënal ko ñëpp ginnaaw rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wek ko ragal ko bëgg ndayam lool te yàggunu fukki at yu manqué tuuti la am ak yaayam yaayam génn adduna waaye mosu koo fàtte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni doom warut a fàtte waajuram waajur waree su koo miis ihfaz wudda abika laa taxu fa yutfi'u lahu nuuraka bàyyi dee su ko miis ndey dee su ko miis bu bàyyi bee ci bu baax bee ci raw dafa mas a conservé cofeelu yaayam sëñ bi bi ndeyam di génn àdduna xale la ci zahir génn àdduna saalum ca njombaate ca wetu anglais ba mu poroxaan googu waaye gis nga image boobu gis nga accent saalum saalum sax sañ tubaab da koo da koo fonkoon ku ma sa wax waxee nu saalum saalum sax da koy fàttali yaayam souvenir la woon ci yaayam bi nga xamante ni bii mi ngi nekk ak baayam nag teewul bokkam yu baax yooyu teel nañoo xam ni sëñ tubaab mii du ñoom duñu moom déedéet li ñuy baax baax baax teel nañoo xam ni du ñoom du moom moo tax daana wax ni Mbàkke Juuf mu ni ko Mbàkke mu ko kiiraay li gën a tal sama digganteeg sëriñ si mooy turu sëriñ wii ñu may woole wallaahi dëgg Mbàkke Juuf mu ko Mbàkke mu ni ko defuma lu sëriñ xam waxuma lu sëriñ xam defuma lu sëriñ man bay nii wa bay nal ulamaa yi buunu saa sama digganteeg sëriñ si man ding la ñu de defuma lu sëriñ man waxuma lu sëriñ xam Mbàkke Juuf mu ni ko Mbàkke mu ni ko euh, ku ma fi mës a bëgg xam ku ma fi mës a bëgg a xam rek yaa ma gën a réere li lay firndeel ni manifesté wu na ci kanamu ay waajuram mooy am na bis sëñ Mor Sali baayam bu baax ba di leen jiite ab julli mhm. sëñ Tuubaa nekk ci sàppe si mhm. ay bokkam rek ak i tànneef mhm. ak i dongo yu judd yu mag waaye sëñ Tuubaa gi ci sàppe si maam Seex Anta dik taxaw ci wetu loxo ndijooram ci ndijooru sëñ Tuubaa sëñ Mor di julli ba sëlmal bi mu ne asalaamaaleykum ñëpp ne asalaamaaleykum bi sëñ Tuubaa ne asalaamaaleykum wal tafata cheikhu woojat cheikh anta jaalisan fi yaminihi fa mhm. xaala lahu cheikh bi arfa sawhin kooku mu fa xaala man a cheikh fa xaala lahu cheikh cheikh faj naa sa aajo bi arfa sawti alhamdulilah dafa am bis boo xam ne dañuy julli rek bi sëñ tubaa sëlmalee rek daal di gestu di jooram am lu ko feeñu ay tëjaliyaat suñu borom yooyu ko yàlla daan xëpp bi mu geesoo rek ni ana kii mu ko mën a seex mu ko faj naa sa aajo moo tax sëñ gaan daana wax ne bi aajo xamu amaguma aajo wax na ma ko waaye xawma luy aajo jaxan <laughs> boobu lu mam si am tam wax loolu waaw waaw waaw waaw nga xam ne booba seen bàyyee julli seen bàyyee leen jiiteeg julli ak njabootam képp ne ci ginnaaw waaye bi mu sëlmalee rek am lu dikk am lu am lu tàbbi ci sëriñ bi bi mu nee gees rek yëpp ci kii ni ko ana kooku mu ne ko mën a seex mu ne ko seex faj naa sa aajo allahu akbar bi arfa a sawtin ca kaw la ko sëñ tubaax seen bàyyi gi waaw toog seen bàyyi gi toog mu ne ko seex faj naa sa aajo allahu akbar bàyyam teel na koo xam bismillah am na bis boo xam ne bii sëñ bàyyam da koy jàngal ci xasida bu ñuy wax téere bu ñuy wax aruud Mm-hmm. arut arut xam-xamu arut mm-hmm. booba sëñ tubaa ndawee na lool maam Mor Anta Sali moo ko doon jàngal moo ko doon jàngal borom bi waaw di jàngal sëñ tubaa arut ndax ñu njëkk a topp sëñ tubaa ci daaray maam Mor Sali la nekkoon nekkoon mën naa am day ci yow mu ne ko cheikh sëñ maam Mor Sali ci diir boobu nag tawat mm-hmm. yaram wi tàng mu am ay fan jàngaleewul ba am bi sëñ tubaa di ko seet si ko dama doon seet si tawat si ba xam noo def mu ne ko tawat si de maa ngi tane waaye li ma ci metti rek mooy sa alluwa ju gàllankooru ji. ndax bi ma la dalee téye téere bi ne ko téere bi ma la dalal alors de sëñ Afe man ña man sëñ Afe man ña moo ko moo ko moo ko waaw ni ko moo ko moo ko bind. ne ko bi ma la ci dalalee arool sax ñu bari dañuy reenaan seex de dafa xër te te te yàkkamti lii du ko man ndax dafa gone day gone bi am le jàng arool. ne ko sañoon nag jàngale ko ba moo ko lu yàlla dogal ci man door koo dogal. sëñ Tuubaa ne ko ah moo moom sax de téere boobu nga ma doon tàmbali am na lu ma ci xam am na lu ma ci yàlla xamal. maam Mor Sëñ nag ku ferme la woon ku amoon caractère la woon ni ko mm-hmm. sëñ téere bii nga ma tàmbali loon te mu gàllankooru ndax sa tawat si am na lu ma ci yàlla xamal dafa daal di dagg waxtaan wa foofu ah. daal di daal di noppi sëñ bi daal di noppi ba ca takkusaan suuf sëñ Mor Anta Sali woolu ko mu ñëw mu ne ko seex mu ne ko mbàkke mu ne ko bi ma la nee sa àlluwa ju gàllankooru ji moo ma metti sama tawat si loo ma tontu mu ne ko dama la noon day am na lu ma ci yàlla yàllay xamal téere bii nga ma tàmbali loon te boobaa tey mu gàllankooru ndax sa taw si am na lu ma ci yàllay xamal mu ne ko seex kaay fii wax ma di la yàlla xamal ci téere bii mhm. sëñ tubaa daal di toog fi wetam mhm. di wax ak baayam ca téere ba ba fam yamoon ba fam mhm. fa baayam yamoon mu ne ko defe naa foofu lan yamoon de mu ne ko waaw sëñ tubaa daal di jël beneen aspect ak beneen méthode ak beneen xeeti xam-xam ak beneen weeti wax waxin yoo xam ne yi bàyyam dane yàcc di ko déglu xamu ca dara ba téere ba jeex tàkk mu ko lii la ma ci yàlla xamal bàyyam ne ko rikk seer nopp bu dul bi bu mu tab ci baat boobu yi tabbeeti yàllaa may xamal bo nga tawgi rek te sëñ Tuubaa sax bi mu demee ba xam ne ay xeeti catak ay yooyu yëpp faat na ko la wax ne allamani laahu alim mimma yashaau min ulum wa zaba qitli bil kulum munsarifan bi safadi mm-hmm. sëñ Tuubaa nee ne bi yàlla na mee ma raw ñëpp dafa reccee ci sama xol bii lépp lu ma nit xamaloon sànni ci àll ba defal ma ci xamuk boppam hmm. lubbii mu nawarun bi nuuril wax yi hmm. wa xaadiri xëyral ulóomil muh yi hmm. sëñ Bousra euh, sëñ Pape Hann laajoon laaj boo xam ni sëñ Touba dafa wax ni li ko yàlla may gàccel na géej